mooy fii lost bi di mm-hmm. nekk mm-hmm. ak sa caalis mooy eh, ne ñaar yooyu ñoo fa war a ne loolu fa war a tegu ci jamono jooju mm-hmm. ah? nga gis ne même sax su fekkee ne danga war a eh, cuuraay l'hôtel bi ñaar yooyu rek ñoo fa war a ne ngir ne loolu rek moo fa war a ne ngir ne du place goo xam ne mel ni suma maas yi nga xam ne dañoo sol lunette bugga naa fomp suma xar kanam ma teg ko nag ma fompa ma jekkali déedéet du pour loolu. ma teg mouchoir voilà nga def fa sa mouchoir. wala xëy na eh, man ñaari lunette laa day sol ma jël benn bi ma tegagu ko foofu ma génnee simi bi salaat bële foofu du place am voilà même sax dama am eh, téere boo xam ne moom laa day jàngee téere bu ndaw du place loolu sax nga soo ba def li nga war a def yëpp nga indi nag téere ga nga xam ne danga ko soxla nga teg ko ci kawam su nga gis ne su pa su rombee ñaar yooyu fi nga xam ne lost bi foofu la nekk fi nga xam ne moo foofu la biñ bi li nekk dara war a cee tegu ba des téere ba nga xam ne moom ngaa jël eh, eh, jàng sa mees mm-hmm. dégg la du ma ne benn téere moo fa war a ne ngir ne léegi-léeg di nga bugg a wax c'est <laughs> na sa préfixe mu nga ko def ci anglais ah. nga bëgg a def beneen bi ci olof anglais amanguñ eh, boo xam ne ñaari waaw dafa am am anglais ak olof léegi-léegi di nga bëgg sax ñetta di nga bëgg def latin di nga bëgg a def anglais di nga bëgg a def wolof xëy na yooyu mën nañ faa tegu waaye nag su weesoo la nga xam ne moom ngaa jàngee dara waru leer na ci ñun yi ñun la laal mm-hmm. liñ dee ooyee concelebrated mass mu di eh, pour ñiy seetaan eh, eh, mooy mees boo xam ne du benn laabe mm-hmm. muy mun nañ ko dañ ko wooyee mees bu rëy mm-hmm. am nañ laissé Casamance laa bi yëpp ñu nga fa. Mm-hmm. ak nañ bare. xam nga doo mën a am benn kaasu biin. di nga am na ñaar oo ñetti kaasu biin. Mm-hmm. ndax ñëpp mën a jël ci ci deretu Christ bi te mu gaaw itam. Mm-hmm. soo ñu def nañ wax ñeneenti kaasu biin ña nga fa. Eh, léegi su waxtu bi ñëwee pour laabe bi. Eh, niñ ko dee ni ñu ko mus a jàngale fii. jël ndox. def ko ci kaasu biin bi di nga gis ñeneen léegi léegi ñoo xam ne dañoo def ndox ci kaasu biin yëpp. na beneen nga gis keneen def. benn euh, kaasu bu ñu rek ndox pour dimbali ñii ñiy dem mais te léegi léeg ñu gis ko amuñ ban mooy ban lan la jàngu bi jàngale foofu. nga foofu dafa leer nañ farapita ngir ne benn kaas la loolu te su ñoo jàng ne kaasu biiñ bi waxuñ ne i kaasi biiñ dañ ne kaasi biiñ bi léegi kaasi biiñ boobu benn la doon kon su fekkee ne dangaa def ndox ci benn la ko war a def. ok ngir ne benn fa war a nekk yeneen ñette yi den ko fa def ngir ne eh, loolu danga ko ci boole rek ok nañ su fekkee ne dama cee jël dama cee eh, ñambaas baati olof dafa nu doon ne nga ñaari wala ñetti cali si fa nekk fekkee leen ci boole waaye bokkuñu ok loolu tax di nga gis ne ña nga xam ne eh, bugga nañ loolu fés leer nit ñi xam ci dara benn kaas dañ dee jël bu mag suñ gannaaw bi nga xam ne fi mu nekk nii léegi commune yi jot na pour laabe yi ñu jël ko ñu sotti ko ci yeneen waaye kon benn rek la war a nekk boobu leer na kon dafa mel ni itam am nga léegi li nga gis laabe bi damat ci yaram bi waaw dugal ko ci biir eh, kaasu bi boobu tam benn rek la moom na nekk doo damat damat def ñetta yëpp pour ak ñun eh, pour ñu ñu suñu di def dimbali nit ñi ñi ñëw ci biir bi bu eh, confusion thank you Father Peter Lopez thank you Father Anthony Gambassi the last two participants in today's edition of Kadu Dunjiji are Simon Suter Mendy and Father Edward Gomez. They're here to give us the word of the Lord, the word precisely in today's readings from Holy Scripture for the sacrifice of the Mass. And they're about humility, knowing our proper place in this world before God and our neighbors. A reading from the book of Ecclesiasticus. My son, be gentle in carrying out your business, and you will be better loved than a lavish giver. The greater you are, the more you should behave humbly, and then you will find favor with the Lord. For great though the power of the Lord is, he accepts the homage of the humble. There is no cure for the proud man's malady, since an evil growth has taken root in him. The heart of a sensible man will reflect on parables. An attentive ear is the sight's dream. The word of the Lord. Thanks be to God. In your goodness, O God, you prepare a home for the poor. The just shall rejoice at the presence of God. They shall exult and dance for joy. Or sing to the Lord, make music to his name. Rejoice in the Lord, exult at his presence. In your goodness, O God, you prepared a home for the poor. Father of the orphan, defender of the widow, such is God in his holy place. God gives the lonely a home to live in. He leads the prisoners forth into freedom. In your goodness, O God, you prepare a home for the poor. You pour down, O God, a generous rain. When your people were starved, you gave them new life. It was there that your people found a home, prepared in your goodness, O God, for the poor. In your goodness, O God, you prepared a home for the poor. Let's listen to the proclamation from the Old Testament, the reading of the Gospel, and Father Gomez's commentary on today's Gospel. Halleluya, halleluya, halleluya, halleluya, halleluya, halleluya, amen. yàlla suñu baay boromu lu nekk maa ngi laa gërëm ci li nga feeñal ñi